jomaay ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa PUR dañu war a croiser euh, pour mën a amal li nga xamante ne moom mooy seen euh, caravane ngir wëyal li nga xamante ne moom mooy seen. Euh, ñu di ñëw fii Parcelles Assainies fekkee caravane bi nga xam ni coalition bi di Diomaye 2024 ñoom ñoo ko daal di woote fas yéene dugg ci mbeddu Ndakaaru yi daal di amal li nga xam ne nag moo di seen caravane waaye ba mu fi ñëwee nag fekk nañ fi ñii di woy takk der yi daanaka ñoom rek ñoo nekk si terrain bi mais aussi si information yi nga xam ni jot ko daal di xam ni jot na fi daal daal di am lan la ginnaaw bu ma la nuyoo pare nu fas yéene bokk li nga xam ne nag moo di waxtaan wi gis nga caravane bi coalition Diomaye daal di woote fii ci Parcelles Assainies mais lu mu fi fekk daa mel ni dina tax suuf waaw euh, depuis sànq ba tey ñun ñu ngi doon def patrouille un peu partout ci biir euh, koñu parcelles yi. Mhm. gis nañ fi benn dispositif sécuritaire boo xam ne bu am am solo depuis terrain ak APES. Mhm. mais ba ñu jógee foofu aussi dañu ñëw ba ci côté église bi gisaat nañ ta yi sànq gis nañu altercation yi nga xam ne amoon nañ ko mhm. ak quelques personne ba ñu xamal ñu sax am na ñu ci jot a arrêté euh, guñ leen ndaxte condition yi ñuy liggéey dafa xaw a difficile. en plus tamit connexion bi problème la donc dafa am beneen méthode bu ñuy jël moo tax parfois euh, yenn yi di ñu échappé ñu koy jégalu bu baax a baax situation yi moo demee nii mun ñu si dara mhm. euh, voilà donc comme ni nga ko waxee euh, signalé nañ ñu fi ay arrestation mhm. dinañ ko topp mukk ci mel ni député Abbas Fall ak mhm. Alir Gérard Koeta ku ko xam-xam ko ak FRAPP nitu dëgg valeur ainsi de suite donc ak beneen garde rapproché boo xamante ni àndoon na ñoom seen bi donc mën nañ jàpp ni ñetti arrestation yooyu moo fi xaw a gum fës en attendant ñu vérifier aussi ba xam seen mbir fan la mujjee en tout cas caravane bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition Diomaye 2024 ñoom ñoo ko sàkk woon def mais aussi déggoon nañ ci waa PUR ñoom aussi ñu ne dañuy wëyal li nga xam ne moom mooy seen campagne. ñoom depuis dimanche ba léegi ñu ci terrain bi ñu ngi ci bu fekkente ni aussi sénégalais yi dañu bëgg a wàcc def caravane caravane waxtaan ak sénégalais mhm. fu ñu wàcc takk der yaa nga fa taxaw. Mhm. tey mbir mi du xeeñ neex étant donné que élection yi déjà. Mhm. ak projet de loi bi nga xam ne adopté nañ ko démb fële ci assemblée nationale. ñëpp mhm. gis nañ la fa xew. Mhm. gis nañ ne vote bi ci condition yi mu am on a vu la fi nga xamante ne moom mooy. assemblée nationale euh, mu évacuer euh, opposition bi yëpp génnee leen ci benn fraction de seconde aussi gis nañ ne vote bi def nañ ko. Euh, loi bi jàll en plus tamit ñu jël leen évacuer leen génnee leen. tey bu ñu fekkente ne loi boobu adopté nañ ko. ñoom aussi ñu bëgg a dëkkeek euh, takk der yi nii ci biir Euh, ci li nga xam ne moom mooy terrain bi mbir mi daanaka pour mu sotti du yomb parce que bu fekkee aussi euh, rassemblement bu ñu woote ñu tas ko mhm. fu ñu dajaloo ñu ne leen doo leen fi taxaw mhm. euh, à bu ñu génnee te ñoom ak takk der ñu ngi nekk di am ay altercation yaakaar naa mbir mi du jur jàmm voilà da nga tudd léegi benn point bu am solo mooy loi bi nga xam ne moom la doon voté nag dem fële ci assemblée mais dinaa si ñëw tuuti mhm. dama bëgg nu ñëwaat encore ci li nga xam ne nag moo waral mbir mi mooy élection présidentielle 2024 yu ñu jàppoon nag février bii nu nekk gis nga mu defee déclaration daf ni lépp da koy daal di annulé mais ñi nga xam ni ñooy candidats yi ñoom jàpp na ni jusqu'à présent amul lenn lu mën a gàkk-gàkkal lii di processus bi mm-hmm. loolu moo tax ñoom ñu commencé di amal li nga xam ne nag moo di seen caravane alors donc tey jii kii bu jàppee annulé na élection yi kii jàpp le contraire est-ce que loolu tey jii dina yombal liggéey bi du yomb parce que xam nga aussi dafa am loo xamante ni parfois c'est contradictoire mm-hmm. parce que aussi bu fekkee dañu ne calendrier républicain kenn waru ko changer mm-hmm. tey ñu présenter ñaari aspect le cas de Karim et le cas de Rose Wardini tey gis nañu ki nga xam ne moom mooy Eva Marie Coll Seck lettre de démission préciser na ko nee na même su fekkente ni processus électoral bi y a des irrégularités warul tax nekk motif bu fonde pour mmh. ñu dàkk élection yi mmh. maintenant comme ni mu ko waxee peut-être kaawu Rose Wardini déjà enquête bi la mu révélé moom mën nañ jàpp ni moo tooñ conseil constitutionnel mm-hmm. le cas de Karim c'est tout à fait normal Thierno Alassane Sall moom moo dugal recours c'est son droit le plus absolu mm-hmm. kenn du ko ko bañal maintenant ñaari cas de figure yooyu su amee conseil constitutionnel def silence cathédrale mm-hmm. boobu ba tey ñu ko mu àddu ci mbir mi njiitu réew mi wax na li nga xam ne moom la jël comme décision te li li yéeme ci mbir bi mooy moom bokkul. Mhm. beneen question bi nit ñi di laaj mooy le 2 avril moom du nekkati ci fonction présidentielle bi. Mhm. donc loolu aussi ay point la yoo xam ne waroon nañu ko xoolaat bu baax. Mhm. avant sax ñuy jàllale li nga xam ne moom mooy projet de loi bi. ak la xew ci biir assemblée yëpp maintenant tey bu fekkente ne opposition bi dañoo xëcc jëmale fale pouvoir bi xëcc jëmale fii coow li mooy bëri solution du am. te aussi tamit parfois am na condition yoo xam ne boo ko créé aussi waxtaan du yomb parce que bu fekkee aussi liberté fondamentale yi nga xamante ne ni nit ñi am nañ ko le tout petit peu mënuñu ko am c'est c'est des problèmes parce que même su fekkente ni Macky Sall dafa dàq élection yi rassemblement yoon moo ko maye tey ñoom opposition bi loolu lañ am dajale seen nit forger sénégalais andiwaat leen pour ñu préparer li nga xam ne moom mooy élection yi mm-hmm. mais su fekkente ni opposition bi fu ñu génn ñu dàq leen pendant ce temps keneen ku am looy organiser nga organiser ko dans ci attaque guise mm-hmm. loolu dafay gën a yokk li nga xam ne moom mooy recul démocratie mm-hmm. te tey li ñu nekk di gis Sénégal ku waxal yàlla wax li nga xam ne moom mooy les faits la vraie version des faits mooy que lii du indi solution te du indi jàmm ci réew mi. te Sénégal jàmm la ñu bëgg. Mhm. la paix la ñu bëgg. Mhm. te tey sénégalais war nañu situation yi ñuy dund nii les sénégalais ne méritent pas ça. Mhm. ils méritent mieux que ça. te tey. tey benn euh, euh, groupe bu 300 personnes ñoo ñëw téye otage dëkk boo xam ne 18 millions sénégalais lañ. Mhm. et c' est pas normal. Mhm, exactement c' est pas loolu nag moom la ñuy gis si terrain bi actuellement ñi nga xam ni ñoo di way takkadeer yi daanaka foo sànni mbatt mu takk ndax ñi nga xam ni ñoom ñooy waa police gendarmerie ñu daal di ñëw contrôler li nga xam ne nag moo di circulation bi naam pour l' lu ñu si mën a jàpp amul lenn loo xam ni ab affrontement la waaye nag bu nu lii nii nuy gis nii daanaka bu moytuwul rek boo moytuwul.

daal di eh, sol daal di mel ni ku ku ku civilu voilà xoolee ci biir seen composition yi mhm. daf si am ñu civilu am ñoo xam ne dañu sol tenue mhm. donc boo xoolee gis nga ni seen oto bi ñi yor arme yi nii mhm. ak ñi yore li nga xam ne moom mooy euh, li ñuy tiré lacrymogène gis ngeen leen noonu maintenant comme ni ñu ko waxee dañu def benn genre groupe boo xam ne fu ñu dégg ni ful am na fa war a dala am na fa rek ñu dem disperser ful bi mais dafa mel ni dafa mel ni côté bi ñu jëm nii dafa mel ni léegi léegi la ñëw mais aussi booy xool dafa ànd ak ñett ñoo xam ne dañoo topp si ginnaam donc il paraît que si kanam am na lu leen signalé foofu. si si sûrement parce que boo xoolee euh, actuellement euh, li nga xamante ne noonu la ñuy déplacé woo léegi boo xoolee li ne noonu la ñuy déplacé woo loolu lay ndurool li nekk ci kanam wala li nekk ci biir euh, xamaguñ ko parce que actuellement ñoom ñëpp fii la ñu stationné wu taxaw gis ngeen noonu ñu tas def li nga xam ne moom mooy point par point. tey angle bi nga xamante ni moom la ñu taxawee nii gis nga leen noonu et tasuñu fii kese parce que même terrain ACAPES mhm. boo xoolee am na ñetti fourgon yoo xam ne taxaw nañ fa mhm. a teg benn dispositif boo xamante ni boo xoolee da ngay xam ne carrément kat ñii ñu ngi son en alerte mhm. duñu tardé pour agir ci lépp loo xam ne xew na. Mhm. mais mais mais ce qui est dommage si mbir mooy arrestation yi nga xam ni ñu ngi ko fay gis te du du si genre manifestation yi kese même aussi lan la booy xool saxaar sale euh, ñàkkul ni y' a quelque xam ne nag mi ngi am si alentour bi si ginnaaw juste à côté terrain ACAPES nekk ko junjee léegi bin fa jaaree lu ñu di fekk ci euh, ku en est que kii di Aline Gérard Koita nekk euh, jege loolu kii di Guy Marius Sagna bokk ci kuréel bi nga xam ni moom mooy FRAPP France dégage moom aussi teg nañ ko loxo à chaque fois genre situation lu ñu si njëkk a nemmeeku mooy taal lacrymogène xam nga déranger li nga xam ne nag moo di askan wi méttital leen jàpp li nga xam ne nag moo di Sénégal yi tëj leen te booy xool tey ji bu fekkoon na leen tëj 2 jours 3 jours nu bàyyi leen mais booy xool ku fa daal di nekk di di nga fa def li nga xam ne nag mooy. mais la preuve xoolal ñun conditions yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee. Ah, c'est pas facile xoolal ñu taxaw nii ñun dañoo laaxatu. Mhm. pour mun a def suñu liggéey. Mhm. parce que tout simplement foo taxaw dañ naan la dégager fii wala ñu dina jugal fii. Mhm. mais ni comme si que yow nekkoo di exercer sa liggéey correctement. te tey li ñu daan sikkee lu ci ëpp ci terrain bi mooy. conditions yi ñuy mel. mais tey jël nañ tous les prérogatives mhm. dañuy sol dañuy sol casquette mhm. dañuy sol suñu ay gilet de presse ñoo ngi suñu ay carte mhm. donc toutes les conditions sont réussies pour sont réuni pour def suñu liggéey correctement mais malgré tout cela on subit toujours des difficultés yoo xamante ni pour ñu mën a euh, exercer suñu liggéey correctement donc de ce fait de ce actuellement ni boo xoolee li nga xamante ni moom moo nekk di xew da ngay xam ne euh, mbir yi doy na waat jéggi na dayoo lool donc ba tey rek ñu leen di rappeler que ni ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy euh, Parcelles Assainies actuellement nag euh, sànq gis ngeen situation yi nga xamante ne moom ngeen gis ni fu mu toll nii am na ci ñoo xamante ni peut-être jamono ji ñu ngi ci loxo yi yoon en tout cas ñu ngi xaarandi rek ba xam. fan la wàndante di mujjee ki gëtam mais en tout cas li ñu leen mën a wax mooy fu mu toll nii ci parcelle euh, mbir yi en tout cas doy na waar lool parce que fi mu toll nii euh, boo xoolee takk der yi euh, dispositif bu doy waar et li ci graaw mooy même nit ñi sax pour ñu circuler war ñu dox seen soxla problème la yaa ngi gis noonu boo doxee di dox sa soxla sax ñu wàññi la ne la fii doo fi jaar donc mu mel ni nag. en tout cas mu mel ni nag nekk na mbir boo xamante ne nii euh, dina compliqué lool sax ci citoyen lambda bi nga xamante ni dégg nga euh, dégg ngeen noonu euh, lacrymogène yi gis ngeen leen noonu voilà commencé nañu dóor li nga xam ne moom mooy lacrymogène yi dégg ngeen leen noonu dégg ngeen eh,